di bokki taalibe di wëllëre di soppe noo ngi leen di nuyu di leen xamal ne sëriñ ahmadul muxtaar wahaballaahu lahu maa lahu taar di xalifatu cheikh mouhamadul moustapha al karim ibnu cheikh al xadim moo fi yabal si doomam sëriñ ousmane mbàkke E gaynde Fatma di jëwriñam di jëmmam mu ànd ak mën naa ne sëriñ Aliou Guèye mi fi teewal Serigne Mountakha mën naa ne mu ànd sëriñ Serigne Ngaya Serigne Cheikh Mbacké Madina ànd ak Serigne Abo mu sëriñ Sidi maanaa ànd sëriñ Guèye bu daaroon bu sëriñ Aliou Mbacke sëriñ Ahmadou Fall moom sëriñ Ahmadul Mokhtar loxo nday jooram sëriñ Daouda Diouf sëriñ Mbay Langor Beyti Maktabatu Nuur ñu te ñu ñu ma sax ci lim bi faf ñi ma tuddul ñi ma tudd yóbbaale leen kon délégation bii moom la ñoo tukkee fa sëriñ Ahmadul Muxtaar ñoo tukkee fa sëriñ Muntaxa Mbàkke muy sëriñ Tuubaa ndax jenn jëmm ñu tukkee fa sëriñ Sidi Mbàkke ibnu Cheikh Abdoul Ahad ak njabootu sëriñ Tuubaa gépp ñuy kenn di lenn sëriñ naa Guèye ibnu sëriñ Alhaaji sëriñ Guèye Badar sëriñ Ousmane indi ay kàddu yooyu dama koy ubbi rek jox ko mu mottali ko te tëj te ñaan muy kàddu yi sëriñ Ahmadul Muxtaar yi mu ko booleel weesuwul di la nuyu nu baax a baax yaa njaboot gi di la jottali loo ab nuyoo ci sëriñ Mortala Géey Badar mii xalifa kër gi ak njaboot gépp nag waa kër sëñ Tayba yi nekk sëriñ Cheikh sëñ Xaadim mii ak sëñ Moustapha ak waa ahlu badar yi nga xam ne ñooy kuréel yi di xamal ne ba nga fa ñëwee wax ko bis bi yi ya yëg na ko bu baax moom ci boppam amoon na yéenay teewal boppam xolam may na ko ko sa digg ak moom diggam ak badar ak waa badar gépp wante yaramam mayu ko moo tax mu yebal kii nga xam ne moom la mu jëmmam ak ñi ma àndal mu Cheikh Ousmane Mbacké Gaynde Fatma mu ñëw teew si ci bii lii nga xam ne bañ ne gàmmu rek la ko mu Moudou Moustapha moom kii ngeen ko tuddee Cheikh Moustapha al Karim Cheikh Moustapha mi ngeen ko tuddee tam jëmmal ko ci kaw suuf gen tuddi ko loo xam ne moo ko moom muy mawlidu nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam fu ngeen ko defee Badar Badar sëñ Tuubaa tënk na yaar ci wenn bayit nee na wa man yuassim mawlida nabiyina babil huda fakk shahidin shahida badran bi xëyri wakami kon mawlid ak badar daje nañ ci wenn bayit kon nuy mawlide fii ci badar di am yaakaar ci ne ñaari bis yi di yow mu badrin ak yow mu mawlit aw lalitu mawlit guddi googi ak bëccëg boobu yi ku fi yenn fanaan fii laal ci bëccëg ba laal ci guddi gi fii nu ngi am yaakaar lool ci pas-pasub ne mën nga cee jot dara daraje ñaari guddi yi asalaamaaleykum wa rahmatullah bokki jullit yi bokki taalib yi ñu leen di ziare yéen ñëpp di wax rek ne kàddu yi fi jub ci ñu ngi ci bokk yi lépp jub na lépp doy na yàlla yàlla yowee lépp xanaa di ziare borom dëkk bi rek eh, sëñ Mor waaye di sant bu baax suñ mbokk yi sëñ Chabana ak bokki badar yëpp ak bokki fi teew wax ne saa su ne bégte lay doon ci ñoom ci ñu am ndigal ndax ay taalibe rek lañ ndigal lañuy xar xaar fu ñu joxe ndigal it danañ jóg parce que yéen joxe su kentu lay kattan ndigal li nag du naqare benn yoon waaye tey moom neex na lool ndax bu fekkee wax ñoo leen dem leen teewal nu teewal sëñ bi rek ëpp na ci ñun waaye dem leen teewal nu badar ci bis gàmmu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tudd ko Cheikh Moustapha loolu rëy na ci ñun waaye bi ñëwee fekk na fi suñuy bopp fekk suñuy bokki jullit foog fay taalibe bi dëgg dëgg dëgg ju Sëriñ Tuubaa loolu it bégtiwaat la ci ñun muy ak yokk te it nag xam nañ fi ay nit ñu xamutoon te loolu saa su ak yokk la euh, di wax rek ne kàddu yi dana gàtt waaye kàddu cant la li ci sëñ bi waroon wax sëñ bi jàllale na ko ñu wax rek ne ñi fas yéene fasante yéen ko la rek ngir jëm yàlla ak sëriñ ak cër bi nga xam ne dëkk bi ñu baax ñëpp am nañ ko fi ci dala ko ci Cheikh Moustapha ak waa sëriñ Tuubaa yëpp ñëpp am fi cër euh, kon mbégte lay mbégte lay doon ci ñun ñu ñëw di xeeñtu cër boobu euh, di wax rek ne Daaru Xuddoos moom kër seex mu Moustapha la kër Serigne Touba la am nañ fépp cër ñu dem fa ak ñu bañ fa dem fu ñu dem fu ne xam nañ seen kër la dañ leen tegit ne yéen a seen kër ndax xam nañu kër Serigne Touba la te loolu rek mooy li am solo ndax Serigne Touba moom. mbir moom faaw am ñu ko njëkkee am ñu ko mujjee rek waaye lépp sëriñ bi benn ci am njàngal la njàngale mi nag mooy jëfe ndigal bàyyi tere ci ñu ko jàngale rek yàlla nañ ci yàlla saxal ñu bañ ko wàcc benn yoon ci dara yi sëriñ Tuubaa bu ko defee ñu jox ko euh, mu ñaan euh, loolu cëram la bu ko defee ñu sant rek santaat bu baax sant nañ ci cër bi jërëjëf sëñ Ousmane nee na nu jox sëriñ Ebo Mbakke mbokkam mi mu feggoon mu Seex Sidi Mbakke mu Seex Abdulaat mu ñaan kon fu waay toll dégg suñuy kàddu tàllal la lii mooy li nga xam ne moo gënoon a fës ci cérémonie officielle wu gàmmu Badar Gueye édition 2018 lii la leen Tawfekh Production jëlalee ci gàmmu Badar Gueye édition 2018 di leen jox dig daje ba déwén incha allah.